waaw Bécaye ni waaje mooy chaque année naan def rek mooy waaj mu njëkk mi avant maggal te mooy defaraat mboolem luy pile wala ventilo wala paratonnerre bi wala lépp loo xam ne nii màggal lu koy soxla ci ay waajtaay bi mu paree ñu waaj waaj ñaareel mooy ñiy siyaare si nag ak ñi jumaa ji di julli si ajjuma yi ak julli juróom ak siyaare yi ñu mën leen taxawlu ba ko ci ne la nga war def nga def ko te mooy wut ay barab jaarukaay góor yu jigéen soññ nit ñi tamit ci ñu sàmmonteeg worma ji col gi surtout col gi ñu sol bu dee góor mu sol yëre góor yu jot bu dee jigéen mu sol yëre jigéen yu jot fat te moytandiku nuru la ko yëre col góor bi maana muy sol ay baylaat wala ay sensé wala ay caaya yooyu nga xam ne dafa xew léegi ñu ñaan mboolem ñi jur ñiy seer si jigéen ñi ñu moytu na ko baax a baax ndax loolu bokk ci worma ji tey daganu ci jigéen tamit muy sol colub góor la topp mooy ñi nga xam ne dañoo ñëw ci marché bëgg bëgg ay souvenir photo wu tamit loolu nan xam ne mën a nekk photo mën a nekk waaye sart bi mooy da ngay bañ def foto boole góor ak jigéen doon sa rakk la doon sa soxna la doon sa yaay la doon sa jegeñaa la waaye bul def foto bokk bu ànd ak góor ak jigéen ngir war ma barab daal ci tamit photo yi nga xam ne dafa ànd ak dafa ànd ak ay ay yu ànd ak tëgg ñoo xam kuy sikar la mu am na tëgg moo xam kuy wax leneen mu am tëgg loolu lépp dañu mooy da ko xam ne lu ñuy aaye la. moo tax léegi danoo xaaj ñetti dawul ñett ñetti ñetti ñu koy aaye koo xam yaa ngi koy gis ci bunt bi mu sol ab peneem ab sileem di aaye loolu ak koo xam ne ni gisoo ko waaye mu ngi ci biir jumaa ji ñu di mbooloo nag di wër ndax loolu am na. ak loo xam ne foo nekk ci jumaa ji foo mal di nekk jumaa ji am na lu lay xool loo xam ne nii loo fi def ci lu mënees naa gaaw. jël si la fa nga nekk te du am benn jafe-jafe loolu mooy wàccaay yi topp li nga si mooy ñi wàllu presse bi ñun tamit soppiku mi wax ne mooy ñi ñëw ngi jël si image wala def si ay plateau wala def si ay lu mel ne wàllu yéete man xam ne ñëw bi da ngay dugg ci biir jël carte wax ni ngay def noo koy defee ak ko koy àndal loolu ñu ci mooy bañ a may accès ku ne mu am droit nekk jumaa ji di wax yoo xam ne nii boo ko topp ba ci dëgg ba ci digg ba. day wuteeg njàngale mi day wuteeg teggin yi te loolu lépp dafa xew léegi moo tax ñu bëgg nit ñëpp bàyyi xel ne jumaa ji moom baral boo xam ne nii da ko war a jox cër wormaal ko ndax suñu yaakaari àddina alxama ko nekk tey bu ndugg bi jumaa tamit ñu bàyyi xel ne coow bokk ci teggini jumaa ji di yuuxu jumaa ba fi nekkee da war a dal ànd ak tekk ak teey def sa ziar te moytanu ko yuuxu yi ak kañu bi surtout nag bi jumaa loolu moom Seex Bas soññee ko baax a baax bëgg nit ñi bàyyi ci biir jumaa ji di yuuxoo ko dàqee ka yu mel noonu loolu bokk na ci nga xam ne ni wàcce ngi nga xam ne nii waaj nañ ko ci màggal gi ngir bëgg koo waajale ñiy siyaare si wala boog ñi ñëw di xool si jumaa ji ci taal mboolem kuy siyaare si jëm ci barab mag ba soow ngay jaare muy góor di jigéen mu xaaj ñaari xaaj muy góor rangu góor rangu jigéen bu àgg ba ci buntu ba ñu séparé ko bu góor duggee ab diir ñu génn dugal ak jigéen ab diir xam ne jaxasoo am ci dugg bi ak ci génn bi incha allah benn jigéen fekkati benn góor ci bi jumaa ji bu nodd dañu tëj ko jël pause bañ ñu pare ñu continuer waat incha allah noonu am fa waajal ci mboolem barab jumaa ji yëpp incha allah. waaw màggalu Touba moom saabu bu jubluwee rek dañuy takkaayu takk suñu der génn suñuy néeg génn suñuy ëtt fas yéene nekk rek ci waañ wi liggéey rek togg di yàq di indi fii kër sañ Touba gi ndax moom la sëñ bi bëgg berneel gan yi boobaag léegi nag ba première safar tàmbaleeg léegi. boobaak léegi wàcc ko euh, tegg ko ma sama cën damay togg lu bari di ko fi indi maa ngi nii damaa séddale nii ba pare rek nga door maa woo boobaak léegi nag wax dëgg yàlla ñu ngi ci rek di togg ak a nga xam ne fii nag lañ koy def nag ba màggal gi pare rek façon palaat bu ne danañ ko togg lépp la ñuy togg moom kay dañuy togg rek loo xam ne daal suñ ko joxee gan yi danañ kontaan rek danañ ko togg lépp ngir sëriñ bi rek tax ndax ñun sëñ Touba rek ñu ñor waaw ci waañu la ñuy fanaan ndax dañoo bañ suñuy añi naaje bañ suñu reeri naaje moo tax ci waañu la ñuy fanaan suñu yóbboo reer rek tàmbaliwaan nañ di xolli loo xam ne suba la jëm pare nañ lépp lépp lépp lépp lépp ma ne la bañ weeru teroo rek lañ pare lépp nga xam ne pour gan ñi rek ba fi ne nii gan yi nga xamante ne dañuy ñëw di ziyaare si fi ne berne yeeg yëpp tàmbali na première safar la tàmbali woon pare nañ bu yàgg di xaar suñuy gan fa bu dikkee dinañ leen teeru euh, ganale leen ganale gu am solo ñun sëñ Touba rek ñu ñor waañu la ñuy fanaan génn nañ suñuy néeg jox leen génn nañ suñu ñun daal maanaam ña nga ca waañu rek fa lañ dëkk